ni soxna si daan def alxames jànguloo ñu solal la kaay dem sa kër na jaay nga dem ñu dugg waañ defar terang yi defar njar yi lalaat ndesten yi taal cuuraay yi taxatal la ci bëccëg bi def loola sieste par force kenn du waxati ci kër gi du ngoonee bu bàyyi la nga sangu soluwaat ñu boole la ak ndaw mu yóbbu la nga ñibbi sa kër parce que sa najaay borom barke la tubaab yee ko employé jox ko maison de commerce yi ci gën a mag mu géré ko am ci barkeem te tey alxames la jàngu leen dem pour gis barke bi seen nijaay am khamis bi delu se mu yabal la ci sa ben bàjjen bu nek fi ci gannaaw dekk bi këram ëppul ñeenti mètre benn néegu ñaxa fa nekk ñu ni nga dem yendu foofu ji ci pale bi nga yendu mais ji ci néegu ñax boobu nga yendu ci soo ñëwee mu ni bett nga ma ah xanaa ma seet na may def ndax nga am loo aye dajalaatu sanqal def ko espèce laax soo amu fi waaye mu jëmb buri defal la ci ni la góor soxlawul suukar joxala sa laaxu buy nga lekk ba noppi mu génne romb jaan gi ni nga toog ah. nga toog nii la la jaan yi di rombe parce que ca gannaaw dëkk ba la bu beneen alxemesee mu seet feneen foo dem yooyu alal la ah hmm? yooyu alal la loolu anañu la ma waxee ni ma dama bëgg nga solu dafa am fu ma bëgg nga dem ca Ndakaaru ma dem solu ba noppi mu woo góor gee ma mu ñëw mu ne ko Ousmane Jaxate dafa sopp kër gi lool te kër gi it mu sopp Cheikh lool ma bëgg nga yóbbul ma fa Cheikh keroog Ousmane Gajag Jaxate jooy na ba ma defe ni dana dem àlaxira bi mu defaral ndoxu raxasu bi daf ci def suukar ni ma ndax xamatuma lu may def walla ndeysaan wallaay ndeysaan hmm? ku kër ci sëriñ Babacar wallaay gis nga yi mel noonu mooy alal yooyu mooy alal bu ajjuma ca ndakaaru góor gi njaay sekk moo jur mbay sekk sunu mbokk mbopp mi gaañu ajjuma du dem këram ndax dafay julli jumaa ci biir dëkk bi bu ko defee mu di ko bañ a lu wéetaay mu ni dem leen añi ca seen baay njaay sekk gis nga yooyu kenn mënu ko fay ah, moo tax Tiwaawan réalité yi ci nekk yépp la xam nañu ko xam nañu ko te ñoom ñoo tax nu xam ko ali baat sa daf ma daan wax nit yoowoon ku ngeen fini ku ngeen fini ak meen rek mu dog waaw yéen nag ñëpp a bokk yéen nag ñëpp a bokk tabarkal yéen nag ñëpp a bokk